gis nañ jëf ji bu waax gis nañ it nu ngeen bennoo bu baax gis nañ fi ngeen teg bokk gi gis nan fi ngeen teg kilifteef gi gis nañ fi ngeen teg sunu kàddu gis nañ it ngeen wormaale suñu jëmm te jëmmi sëñ Tuubaa ak sëñ jaar rek tax kon fu mu toll ñu ngi leen di ñaanal sama borom dolli leen tawfeex dolli leen xéewal kenn dolli leen sutura dolli leen jàmm yëkkati ko sooy def bu ndax adduna bi dafa doy waar li ci nekk bari lool li ci nuru lu jëm fenn te jëmul fenn bari loo luy yëngu mel ni dara nga fa tam te dara ñëw fa bari loo waaye ndokk loolu ba doon ci si yàlla suñ tubaa sàmmee ba musal leen ci yéen man damaa xamatul xew ba jamono ji léegi lu bari gis nga nit ñi nit ñi bañante xaw ma lu xew. ba jamono ji nit ñi nit ñi yàqalante. xaw ma lu xew. ba nit ñi nit ñi iñaanante lan la lu xew lu xew lu mu. jamono ji yàqu damaa defe ne xanaa nit. lu xol ba wow wow lu xol ba tuuti tuuti. lu xol ba tilim tilim tilim tilim tilim. xanaa war naa mën a fexe ba raas ko ci yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa. xanaa bu la të. lu nit ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk jot war na man euh, junni laa ilaha illallah muhammadu rasulullah bi set subaa ngoon nit ki loolu bu ko tëx naa war na man salaatu ala nabi subaa ngoon loolu bu ko tëx fukki téeméer bi xanaa bi subaa ngoon loolu bu ko tëx nag li gën a gaaw te gën bu jant fenkee balaa so xanaa xelam war naa mën a nit Sëñ Tuubaa loolu mooy li gën a gaaw te gën a wér mmh. kon nun foofu lañ nekk ci aw dox yi nan góorgóorlu bu baax mm-hmm. te xam ni lu jóg di yàq bari na mm-hmm. ndax bari na ñoo xam ne kat ay njub lañ na ay nit yu doyee di lañ mm-hmm. ay ay kàccoor lañ te saa su ne dañ lay wax te jëm fenn di ko rattax ay baat ak di ko rattax kàddu ngir nga bañ a xemmeem ngir mbiram ngir bëgg ko gàllankoor te teg ko ci bakkar képp ak iñaan dëgg la wax nga dëgg de bakkar ak iñaan rek laahi wax nga dëgg hmm? nga dëgg de suñ tubaa lim nu fàggul suñ tubaa lim nu daj ngir ñun bari na lool war nañ koo jombut suñ tubaa képp ku nu yaakaar nga suñ tubaa te bëgg a dund googu dund gu ñaaw hmm. fexeel rek ba sa xel di dem bis bu set sëñ sëñ tubaa xol bu day mujj nooy fexeel sa xel di dem ci sëñ tubaa bis bu set dëgg la xol bu xol bu xat bi day mujj yaa fexeel sa xel di dem ci sëñ tubaa dëgg la xol tirim bi day mujj set wecc waaye leneen lu dul loolu. ay caaxaan ak dëgg ak kàcc rek la suñ tubaab rek lay dëgg. suñ bambara kii dëgg. dëgg la de loolu nit mën a wax loolu nit mën a wan fu loolu nit mën a jëme. dëgg suñ tubaab rek lay dëgg. dëgg la. suñ tubaab képp ay dëgg. yàgg fi tawér yàgg fi tawér sek. nan maa si góorgóorlu defaraat suñu tële bi defaraat suñu diggante te xam ni adduna si yii ñu nekk am na ñu ne fi jiitu woon. am na ñu. tey ñu ngi leen di ñaanal. ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu ëllëg dañ ñuy ñaanal bu boobaa nañ fexe sunu way hmm. bokk jullit bokk taalibe yi. nañ doon leen góorgóorlu. Hmm. nañ ci seen jëf. jëflante nañ doon leen góorgóorlu ci sunu doxin. nañ doon leen góorgóorlu ci sunu jaxasoo. Hmm. kenn ku ne fas yéene seetal sa digg sa morom. yéen a ngi nii yéen a ngi nii toog daaw na nga nii daaw ba na nga nii ren. kenn xam mënta toog waat duur sa kaamil sa loxo ne lu ma fi jaamu yàlla nangu na hmm. kenn mënta toog waat ne li ma fi tooñ yàlla jéggal na ma kenn mënta toog waat ne sama diggante ak sama nawle tooñ yi ma fi tooñ jéggal nañ ma nit nag bu umpalee noonu boppam hmm. war naa waajal boppam ci lu bari hmm. léegi caaxaan yi bari na de nit ñu bon ñi bari na de nit ñu eñaan ñi bari na de nit ñu soxor ñi bari na de mm. nit ñu sew ñi bari na de mm. waaye nit ku tribe ku mel noonu nag saa su ne mu lay tegal nit ki baax nit nit ku baax naa ko weddi nit ku baax yi te gëm ma man ku bon loolu rekk fi ne loolu rekk fi ne weddil ku baax yi ki jëm yaa nga jëm ci yàlla jëm ci Sëñ Tuubaa di liggéey mm. parce que bu dañu sànni la dëgg la dëgg la ak ay dëgg sëg dañ ko waaye muñ te gore te dem rek. dem rek man de en tout cas sama sañoon. Ah. sama jëmm ji dinaa dox doxaale mboolem ku yaakaar si. dana de de dana am de ma sañoon. Ah. danaa dox doxaale mboolem ku yaakaar si. dëgg la dëgg la yàlla nañ ko fekkee nagari déwén. amiin gën ngaa rafetlu fekkee.